pour mu gën a baax moo tax mu ne nañ lël nañ ko waxtaanee. yéene mooy président Macky Sall nee na lépp si yéene lay tàmbalee. waaw moom laa donc bilan immatériel. si wàllu diine. Mm. ak wàllu nite. waaw allah. mais xanaa dégg léegi dafa am lenn lu am. mooy lan lenn lu am mooy lan. ci wàllu restriction de liberté mooy. waaw dagg internet. restriction de liberté interdiction de manifestation par mooy mooy mooy lépp matewut. Mm. ah. Ngone. mais yow Tounkara li tax ni matewul doo ci taxaw tamit. kan moo ñemee wax ne lépp dafa mate. mais kon Tounkara yow da nga wax ne kon àndoon nga ci ki sàccoon pe euh, ni ñu ko waxatee sax. liste ku sàcc ànduma ak yow de. xaaral rek. nga leer léegi soo soo cité yii. mu mel da nga am yeneen yoo xaw a fàtte wala nga bàyyi ko moo tax ma lay fàttali mel da nga ci àndoon mooy par exemple ki nga xamante ne dafa sàccoon ay liste ñu ñëw ñu recevoir ko ca pale ba. am nañu def ak moom benn beneen bi mooy gis nga fi benn au bokk ci APR toog ci télévision ne eh man jël naa xam nga yow àndoon nañ jël comme yu mel. kan la ko kan la Farba Ngom Farba Ngom taxaw na télévision ne jël naa ne Aminata Touré mënul wax mu ne Thierno Alassane la mënul wax. parce que kon loolu da jàpp ni. bon léegi encouragé la. man la man la ma demaat ma sori. gis nañ fi koo xam ne dafa taxaw ñu tuddee ko insulteur. de de la république. mu ànd ak ñoom du benn du ñaar photo ak ñoom. bon léegi léegi. waaw yooyu kon nag bu njëkk bi nga wax bu njëkk bi nga wax. parce que ñaari ñaari def naa benn la. nga ni kii dafa sàcc list kii ne jël naa liste man ku sàcc ànduma ak yow. sama baat nag si kaw suñu xaalis moom. xaalis senegal yu néew yi. Hmm. nga xam ni suñuy euh, ndox matagul. ambulance matagul ambulance doyul école doyul dara doyul ñu jël la. jaf la DG jox la cinq millions jox la oto jox la kër nga wëlbatikuwaat sàccaat suñu xaalis man man ba personnellement baaluma la. xam nga ci dara am na ñoo ci xam. bon léegi. ah mais ñi ñuy wax nii yëpp. bon léegi président Macky Sall dañ koy dugal. léegi euh, ki ne ki ne jël naa. waa kooku ànduma moom. doo fa sàcc. dama ni ànduma ak sàcc. jëflantewuma ak sàcc. Mhm. Euh, jàpp euh, demalantewuma ak sàcc. mais xaw ma loolu ni ñu koy defee. waaw noo jàppee euh, Tunkara li nga wax léegi nga laaj yi baaxut. ah am na ñoo xam ne hors sujet mooy lii. waaw mais dañu laaj rek de. na dafa wax ne bu fekkee may nga bu gaawee ma jël. bilan président Macky ngay wax li mu def ci këru diine. man la sama mu leen andil la mu fa def mais noo mën jàngatee en tant que président de la république la mu fa def lépp. ak ni nga ko peintre ci baax baax même bu ñu ko waxul yow ñu ne ni mën nañ ko gis ñu làpp ko fa Tiwaawan ñu doo ko fa cité religieuse la Touba ñu doo ko fa cité religieuse la feneen ak feneen mais moom la fal moom la moom la yóbbu mu nekkoon candidat mm-hmm. man damay jàpp man personnellement moom lañ perte euh, euh, li nga laaj nii hmm. sànq tontu naa si nee naa la hmm. dafa am benn soxna fële Touba ñuy waxtaan mu ne ma gis nga ñun Macky Sall tali or su ko fi defoon sax dañ ko fi jëlee. Ah, d'accord sociologie politique la euh, géejawaay dafa am lu fa xew. man sama pape géejawaay la dëkk euh, géejawaay dañu am benn maire Aliou Sall mu ñëw commencé changer visage yu géejawaay. ñu ñu soog a xam ne géejawaay nekk di ville la investir si. Euh, environnement bi investir ci éducation ñu commencé gis ay infrastructure jékki-jékki ñu jëlee ko fa indi Ahmed Aïdara monsieur le ñu koy nuyu. léegi Guédiawaye ci programme bi ñu teg. Mhm. cent milliards pour euh, liggéeyi dëkk yi gox-goxaat yi. di Guédiawaye mooy ndaare. dix-neuvième sur dix-neuf. Ahmed wuyu Tunkara nee na cuune ga mënoo dara. mais mais loolu Ahmed daf ko faa fekk. yaa ngi dégg donc ñun bon xam nga loolu. non Sénégal téye ay loxoom. Eh, mooy ñi nga xam ne mën nga maa am xam-xam nag mais bu ñu nee collectivité territoriale. mën naa la see jox ay bagages léegi léegi man li may wax mooy. li may wax mooy attention li may wax mooy lii c'est très sérieux. oui oui c'est très sérieux vous avez parfaitement raison. ok parce que Guédiawaye tey. Mhm. mooy dix-neuvième sur les dix-neuf communes. mooy Ndaare. qu'est-ce qu'il explique léegi li koy expliquer mhm. facteurs yi mën na bari mhm. te souvent pour expliquer lu mel ni dëkk wala réew ni muy doxee facteurs yi day bari saa su ne mhm. waaye réalité bi concrète mooy Guédiawaye mooy Ndaare d'accord léegi man boo gisee ma laaj na loolu comme da nga ne dañuy wax ci xam-xam dafa am lu ñuy wax ay programme yoo xam ni état bi moom moo ko am sur le PACASEN PACASEN et puis président Macky Sall daf ko indi yu bëri ci la ñu ci la ñu def mais xam nga vous avez parlé de facteurs vous êtes très intelligent vous avez parlé de facteurs la ville de Guédiawaye elle a cinq communes cinq communes en termes de potentiel amul ay usines mm-hmm. donc tey ci critères yi ñuy xayma ndax mot nga ñu mën laa natt ba mën laa jox ci projet bi dañ ciy boole say ressources yi nga am dañ ci boole say ressources humaines ensuite loolu nga wax noonu commencé wul ci ay dara parce que les mêmes facteurs nekkoon na ay problème yu Aliou Sall confronté wu ça veut dire les mêmes CMO mooy critère minimum obligatoire depuis deux mille 2019 la la la concerné man mi am naa problème ak Ahmed Aïdara dinaa ko réglé ak moom parce que jéggi na géej waaye dugg Pikine te comme Pikine sama yëf loolu loolu dinaa ko réglé ak moom parce que dinaa dem ANAT dinaa dem fi mu war a dem ah, mais sous cette condition beneen bi euh, Aliou Sall a été le petit frère du président Macky Sall moi je n'ai rien contre Aliou Sall que ñëw na Guédiawaye am na fa certificat de résidence parce que la loi électorale permet à une personne nga dëkk fenn juróom-benn weer. Mhm. dem na ci ay élections waa Guédiawaye bu ñu nangoo ñu fal ko. Mhm. mu ngi yoroon AMS nekk raqu président. li mu mën a xëcc da nga naan kay Malick Gakou jël maire bi. li mu mën a xëcc mën koo ñoddi d'ailleurs Malick Gakou bi ñu waxtaanee dama ne ko man je ne comprends pas. jël joxe bi ma ko ko laajee mu ne ma noo parce que boobu le deal c'était que moom mu dem conseil régional. donc pour man sax li ëpp solo. dañ kaa nax tey ça nous permet li nga doon wax ci ci cité yi man damay pikin laa dëkk juma grande mosquée Pikine Macky Sall mooy ko tabaxal bi may nekk xale moo rêve de gosse c'était que ñun ñu tabaxal ko suñu bopp bu ñu ko mënee. kenn du ne léppam jagur il faut être malhonnête wala nga wala nga nekk ci leneen. su la VDN 3 yi ñëw liggéey si en moins de vingt minutes vingt cinq minutes je peux arriver. Mhm. Ablaye Wade am na jéego yu mu teg Macky am na jéego yu mu teg. et personne am na yu mu yeggali kenn du ne. ànd naa ak sumay xaritu tubaab ñu ñëw ci projet bu ma nekk ma ñëw gis centrale éolienne je fait Mboro j'ai vu que. même li nga xam ne def na ko ci sax tranche kenn waxul lool. comme li nga wax noonu dans un bilan y a du positif comme y a du négatif. man je ne suis pour faire le procès de Macky Sall. j'en ai ah. plus besoin vous savez pourquoi. parce que ah. les Sénégalais ont décidé. oui duudu yaaykat yi day wooye mu ne li fàtt bët bët mënu koo gis parce que am na fooy toll nga tëju ci sa tour d'ivoire doo mën a yëg jooy askan wi. doo mën a yéeg jàmbatu askan man kay dama ko bëggoon laaj ndax moom xam na ne Colobane dañuy jaay ñu bàyyi leen ma waaye rek man dama leen koy jox rek daal jaaraale xam nga jaaraale woo xam nga on est ci benn tour d'ivoire le décideur mhm. su ma yaay daf ma doon wax Olof Ndiaye nee na jubb bi la fal boo ko bàyyee rek follee ko jubb bi la fal da koy diw carte muy retax mais nijaay quand on prend le haut conseil des collectivités territoriales on met de l'argent moi je suis un local gisuma benn impact bu mu am on mais un budget de sept milliards pour ça j'ai rien contre le conseil économique social mais en termes d'impact lan la apporté sur les politiques publiques vous parlez de priorisation de politiques publiques Sénégal am lu mu soxla manger se nourrir s'éduquer se soigner mm mais ñun ñu dem ba si suñu réew ay doomu réew mi bëggatuñu toog ci réew mi maanaam jaral na leen nañ génn réew mi Barça Barça ça veut dire les deux extrémités pour ñoom Barça mooy tekki bi Barça mooy naa dee moi j'ai perdu des amis ñaata xarit laa am ñu ma foondoon kenn ki ci gaal yi la faatu kenn ki ci Nicaragua bi la faatu. Mhm. et peut-être il y en aura d'autres ban politique de jeunesse lañ teg pour occuper notre jeunesse bi ngay wax li ngay toog nga naan Sénégal ca kanam liy jëmale réew ca kanam ci xam-xam la nekk est-ce qu'on a investi capital humain est-ce qu'on a investi quand le président parlait d'autosuffisance en riz autosuffisance en riz vous imaginez est-ce que nous on doit manger du sax l'autre question est-ce que lu colonisateur bi imposé ñu mais en pleine crise de Covid le président s'affiche avec du riz importé mm -hmm. alors que qu'on nous avait parlé d'autosuffisance en riz en 2017 tissu économique boobu ngay wax comme comme réew moom ngay wax ñu dem ba remarquer nii